vision politique wala projet boobee ñu continuer ko. Mm-hmm. loolu du leen arranger. daaw daaw daaw da si réaction yi dama si gis euh, bu Souleymane Jules Diop. Euh, mu def benn benn benn texte ginnaaw président Bassirou Diomaye Faye bu mu yëkkatee ay kàddu fële ca ca ca ca ONU euh, depuis très longtemps je n'ai pas entendu un discours aussi haut aussi ferme de la part d'un dirigeant africain du haut de la tribune des Nations Unies oui le respect de la différence légale euh, dignité des peuples constitue le fondement même di vivre ensemble et sert de socle au droit international et du multilatéralisme le principe de souveraineté des États et leur euh, égale dignité en est le fondement. Le président de la République vient de euh, prononcer au moment où je suis en de le suivre un discours de haute facture qui, euh, je le crois vraiment, restera dans les mémoires alors euh, que l'on s'y attendait le moins puisqu'il en est à son premier véritable rendez-vous avec la communauté internationale. C'est être juste que, le, que de le reconnaître. Euh, teg sa boobu Souleymane Jules Diop moo ko bind démb bi président Bassirou Diomaye Faye euh, defee boobu la discours mu rafetlu bu baax a baax kàddu yi nga xam ne ci na ko fa waaye aussi nee na gëj na dégg benn président africain bu bu bu tenir ay propos yi fële ci Nations Unies. démb bi ma gisee euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye yëkkati ay kàddu. Mhm. sama xel dafa dem ci Thomas Sankara. Mhm. yàlla damaa may ne ñoom rek la ñoom ñoom sama temps libre ñoom ñoo ko moom. Mhm. Euh, boo xoolee li Thomas Sankara doon prôné ba mu jàkkaarloog ñoom kàddu ya mu leen yëkkati. dañoo tolloon fi kàddu yoo xam ne Thomas Sankara da ko yëkkati woon. ne ko bor bi ngeen ñuy wax na ñiin dañ leen koo amel duñ leen ko fay. tellement que ñoom heure bu ñu seeyee xëyoon saa su ne di ñuy bëgg di ñuy jox wala di ñu imposer wala di ñu won wala di ñu doole mais. Euh, li Souleymane Sul Diop yëkkati et sincèrement même bu nekkee ne. même bu nekkee ne ànd ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak képp kuy sénégalais jàppal ne démb. saa yi war nga yëkkati kat ne fier nga si li nga xam ne. moo di doomu Sénégal. si bépp côté. dama ne la maanaam si forme si fond ak ca lépp. si solin. mais kàddu yi nga xam ne moom la ñuy wax dañoo woote jàmm jàmm jàmm jàmm jàmm. Uh-huh. mais jàmm boobee est-ce que yéen réew yi ci boppam ñoo ngi koy wéyal. et pourquoi jusqu'à maintenant bi nga xam ne moom lay wax ak yow. Uh-huh. ñu mën a nangu Israël. Uh-huh. di bombarder Palestine. loo xam ne dañu tënkoon waxtaanee ko. mais jomaay na leen yemu ca foofu maanaam li nga xam ne moom la ñu waxoon fii ci ONU dañ ko war a mën a def. ñaata yoon nga gis ci réew yi. Uh-huh. nga xam ne Diomaye yebu ca. mu ne pourquoi ngeen nangu yenn réew sax ci Afrique ci boppam. Uh-huh. ñoo ñee di dund ci ndóol. Diomaye uh-huh. dafa woote égalité. dafa woote paix. dafa woote li nga xam ne moo di respect. maanaam li suñu diine sa wax moom la indi et sincèrement si la ni ma la ko waxee ne. dama ko wax waxaat ko. Uh-huh. discours Diomaye sax moo gën a yomb. bu fi uh-huh. Sonko jàkkaarloo nag ñoom jàppal ne si lay gën a piir uh-huh. yàgg ngeen dégg ñu naan ñu dafa am li nga xam ne moo di ay secret boo toogee wax ak boo ñëwee am na ay réalité wu pouvoir. mais lii Ousmane doon yëkkati ji jàkkaarloog li nga xam ne moo di France di ko wax. di ko wax yéen réew yi démb ndawam si boppam si parti bi. Mhm. ndawam si parti bi foofu lay waxee nañ ma dégg. Mhm. ndawam si part bi poulain wam si parti bi moom moo dem téye monde entier. absolument di leen wax li nga xam ne parti ki jiite parti boobu da ko doon def. Mhm. mais léegi dañoo war a xool pourquoi ñun si Afrique. xale yi mujjee juddu mën a yëkkati yenn kàddu yi dëgg woote li nga xam ne moo di souveraineté te ñeneen ñi mënuñu ko. dafa am kilifa bu doon wax ne tànk nasaraan si ñoo ngi lay jëfal jàppal ne liggéeyaloo sa askan. absolument mais dañuy woon it tànk nasaraan si si boppam moo ngi lay joxoñ baraam tuuma. Mhm. baaxoo dictateur nga nàngam jàppal ne sa askan gis na gis nañ. gis nañ sa liggéey ay mhm. réew yooyu tànk xam nañ ne si boppam yow mhm. li ngay woote nii du leen arrangé ndaxte ñoom. si côté agriculture bu ñu amee réew yi nga gis yëpp. Mhm. pourquoi ñëpp di woo jomaay li ñu am la mhm. réew moo xam ne am nga bépp gàncax mais bu ñu nekkee ne dañoo am kenn koo xam ne danaan mhm. mbir mi dootuñu ko bàyyi ñu koy xëcc di ko def ni la neexee du leen arrangé armée française base bi nekk fii ban njëriñ la ñu amal mais waxtaan bi dafay bokk ne. fii ñii bi ñu ñëwee souveraineté bi base bi jóge fi boo demee plus de trois cent hommes ñoo fa ne personne mm-hmm. ñu ne leen di ngeen di jóge suñu réew xam nga lu ñu wax garaawul ni ñu dindi deux cent yi bàyyi fi cent mm-hmm. pourquoi cent yooyu nekk fi ba tey maanaam ñoom heure bu ñu séyoon dañ bëgg nañ di ñu contrôle maintenant parfois nag ñu am un leader boo xam ne dafa am lu muy jaay mm-hmm. mais leader boobee bu mu la bett un bu un jour nga gis France 24 wala yenn médias yi di diaboliser li nga xam ne moo di Diomaye ak Sonko mhm. te loolu nag fu ñu jaarale ko ci opposition bi lañ koy jaarale mhm. vision bi Thomas Sankara yoroon mais ndax loolee vision mosoon mënoon na ko gën a ëpp mhm. nuñ ko def dañoo ñëw dugg ci fekk ki ko gën a jege rey ko vision bi nga xam ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom la nekk di jaay du leen arrangé. Mhm. léegi nag di leen def le tout ba déstabiliser li nga xam ne moo di réew mi. Mhm. foofu nag fii laa bëgg nit yi ñu xam fi ñu waxee. très duñ ñu baax. Mhm. discours démb bu nekkee ne waa ji li wax moom lay continuer. di waxtaan ak ñëpp dootul nangooti benn nit ñëw jël li nga xam ne mooy suñu gàncax. dootul nangooti ñu jël réewum lëmb di leen rey ñu noppi. dañ naan kii kat. duñ imposé ni duñ imposé mhm. dañ naan kii élément perturbateur mais léegi élément perturbateur boobu. Mhm. Ah, pourquoi nan la ñu mën a def ba déstabiliser ko raison pour la laquelle nga gis Macron woo Macky sàll teg ko ci wetam. Mhm. teg ko ci wet boobu mooy Macky Sall xam ne réew mi. et le même Sall boobee dafay bokk ci ñi nga xam ne au delà déstabiliser fi nga xam ne mooy Sénégal en Afrique bum la bett. dans peu de temps nga gis Macky Sall. dem ca Mali dem ca Burkina Faso dem ca Niger mm-hmm. woote ñi nga xam ne moo di opposition bi ci boppam ne day toog waxtaan ak ñoom. Mm-hmm. dafa am beneen pas leneen loo xam ne France sale boulot bi mu doon def wala yenni mm-hmm. léegi du ko defati day jël ab nit ku ñuul mu defal ko ko comme ni mu ko doon defee saa soo dégg ne président rey nañ ko fii président boo xam ne da doon jóg pour défendre réewam jàpp ne France moo doon boole keneen. léegi France googee bu mu la bett saa su ne. Mhm. France boobee bu mu la bett saa su ne nga gis ko ne jël nañ Macky Sall nga dégg ne Macky ngi Mali di waxtaan ak opposition bi. Mhm. Macky ngi nangam Macky ngi nangam loolu maanaam seeni stratégie la te noonu la ñu continuer mhm. loolu moo tax nag aussi ma gëm na ni nguur gi. paa yu ñu nekk même seen sécurité dañ ko war a gën a mën a gën a gën a boole gën a ànd ndaxte lii dina raxew fii laa la ko waxee d'ici deux ans. pas pas bi ñu nekk ni bu ci continuer au niveau international dinañ def le tout pour déstabiliser suñu réew. Mhm. léegi na balaa ñu fay yegg ñu fi nekk ñoom ñooy jël seeni responsabilité ci bépp côté. exactement c' est très important lu lu lu am solo nga wax euh, ci euh, ponk boobu alors Daouda euh, nu ñëw ci wàllum politique bi gis nga rebondissement yi nga xam ne am na ginnaaw